xam nga Sénégal dëkk bu ubbeeku la sénégalais yi ñi ngi jóge fii di dem di nappi ji feneen ñu di leen may ay licence est-ce que licence dépassé ñi leen koy may taxawaay boobu la ñuy amee. mais li am solo mooy li am solo mooy maye licence de pêche ab sénégalais bu am sañ-sañ wala ku jóge bitim réew ñëw loolu lépp. yow kon licence de pêche yu ñu joxe ay étranger ñu ñëw fii di kii d'accord nga si. man gisuma yu ñu fi jox étranger bu nga lu nga xam ne luñ ci luñ tegewul loo xam ne yoonu Sénégal da ko tere ñu def ko gisuma ko fi li ma li ma d'accord mooy. Hmm. sénégalais bi. bu fekkente ne mi ngi dem feneen di ñu koy may licence. Mhm. ñu ngi dem mën nañ mën naa ba ñu séddee dëkk mais xam nañ ni ñu ngi dem ci yeneen dëkk ñu leen fay may ay licence ñuy napp. d'accord ña leen koy may dañoo yor seen dëkk am seen ay loi mhm. te da dañ ko respecté moo tax ñu may leen ko kon sénégalais bi bu fekkee dafa am dëkk bi am ku fi ñëw ku mën a doon te respecté loi yi dëkk bi. Mhm. li nga xam ne mooy li ko tënk. bu ko respecté pour man amul lenn lu nga xamante ni bii ni war nañ ko ko mën a rapproché lenn rek mooy li am solo mooy suñu géej gi ñu sàmm ko ba kenn mm-hmm. ku ci mën a nekk mooy rikki na ci réew mi ku jóge bitim réew bañ ko yàq mm-hmm. bañ ci def lenn lu ko yàq te loolu nag dama yaakaar ni liñ ci war a gën a sàkku te gën ko ci yokk mu gën a renforcer suñu moyens ndax li ñuy gën a ñun jot ci li gën a métti ci suñu suñu suñu napp. Mhm. mooy ñi nga xam ne dañuy dugg ci suñu géej gi li ñuy wax pêche illicite di dugg di di di sàcc suñu géej di dem fet di dem te ñu fay ñu fi dara. Mhm. te loolu buñ ko suivre ci li ñuy gisoon ci ONG yi. Mhm. xaalis bu bëree bari la par rapport ak li ñuy Sénégal di ñàkk par an. d'accord kon jàpp na ni. renforcer moyens yi nga xam ne mooy waa marine nationale. d'accord d'accord ba ñu gën a mën a saytu suñu géej gi ci ñi nga xam ne ñu ngi fiy dugg di nappate indilu nu fi dara. d'accord je pense question boobu moom lañ yaakaar ni mooy ëpp importance que ki nga xam ni dafa nekk. d'accord dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat par rapport à